sami national ba tey ñoo ngay wuyal seen bankub loxo loole nag ginnaaw noppi bi nga xamante ne autorité yi amal nañ ko ci seen ñaxtu yi kenn faale wuñu kenn lijjanti wuñ jéemoon nañ waxtaan ak ñun waaye waxtaan ba dañoo jàpp ni que daal jëluñ ñu au sérieux parce que ba léegi ñi ñu war a recevoir ci boppam recevoir wuñu dañuy jox juste ay ndaw ñuy ñëw di waxtaan ak ñun lu ñu waxtaan pare ne dinañ dem rendre compte waaye du am benn suite loolu nag ñun dañu cee sonn. buñ sukkandikoo ci secrétaire général bu section SAMES foofe ca SAMU donte ne sax ñoo ngay jël en charge ñu di urgence primaire yi waaye nag mot d'ordre bi daal nañ ko respecté comme ni mu waxee. moo d'ordre bi ñëpp ko respecté parce que li ñuy dund fii nii ñëpp koy dundandoo amul kenn kenn kenn koo xamante ni mu ngi dund leneen lu dul lu metti ñëpp a koy dundandoo moo tax ñëpp a naqarlu condition yi dundee moo tax ñëpp ci ànd. ci région yépp. bile grève nag du ñàkk ay jafe-jafe yi muy jur ci secteuru santé bi. ñu nag naataango yi ñuy liggéeyandool di leen faral di jàppale te ñu nekk ci périphérie bi ñooñu ñu ngi naqarlu bu baax ñun li ñuy dund ba pare yëg nañ li ñuy dund daanaka sax dañuy toog sax di xalaat ndax du ñu dugg ci xeex bi ngir mu mën a gaaw a jeex ndax ñoom fu mu nekk nii sonn nañ ndax am na fu ñu leen féete woon ci wàllum urgence yi. fu mu nekk nii bu nu grévé dañuy banque suñuy loxo ci côté wàll woowu noonu loolu nag ñoom dañ koy yëg bu baax a baax a baax. yile liggéeykatu SAMU national nag dañoo fas yéene wéyal seenu grève ba ñu am li ñu bëgg jamono ji daal nañoo tëral plan d'action bu bees. d'ici un mois chaque mercredi et jeudi nous allons observer une grève donc de 48 heures avec respect des urgences primaires.